juróom-ñeent digg gu neex gi
salaamaaleykum mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission yi weesu gisoon nanu ni aadama ak awa jàdde yoonu yàlla ba lekk ca doomu garab gamu leen tere woon nit ki yàlla sàkk ci melokaanam tànnoon na topp seytaane bañaaleb yàlla bala adama ak awa di bàkkaar dañu doon bég bu yàlla daan jaar ca tool ba ngir waxtaan ak ñoom wante léegi bi ñu déggee baatu yàlla ñu tiit te rus te di fexe nëbbu yàlla ca biir garabi tool ba waaye yàlla wuti adama ak awa waxtaan ak ñoom xamal leen li seen bàkkaar naroon a indaale ci àddina maanaam coono ak naqar dëkk ak dagg feebar ak dee loola tax li ko dale ca bés booba ba tey takkandeeru dee mu ngi tiim askanu aadama doomi aadama yépp dañuy soso ci bàkkaar te juddoowaale jikko ju bon bañ ko walla bëgg ko nun ñépp a dëppook sunu jikkoy maam aadama janax du jur lu dul luy gas sunu bàkkaaru maam aadama moo tax nu nekk ay bàkkaarkati judduwaale ci lu wér musiba du yam ci bopp boroom te ni bàkkaar tàggale aadama ak yàlla noonu itam lanu sunu bàkkaar tàggalek yàlla loolu la mbind mi wax ne bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar ñépp a bàkkaar ba jotetuñu ndamu yàlla seeni ñaawteef ñoo dox seen diggante ak yàlla seeni bàkkaara leen di nëbb xar kanamam xebaar bii de neexula dégg wante noonu la ci lu wóor dëgg kaani la kon gis nanu ni benn bàkkaaru aadama tàggale woon xeetu nit ñépp ak yàlla bés ba aadama déggadile yàlla aadama ak ñépp ñi wara soqi ko ci moom génnoon nañu nguuru leer gi dugg ci nguuru lëndëm gi amatuñu woon benn cër ci nguuruk yàlla seen bàkkaara tax seen cër mu nga woon ak seytaane moom mi leen jàppoon ni ay jaamam léegi mënatuñu yaakaar dara ci dund gi lu dul nootaangeeg bàkkaar ak tiitaangeeg dee te ca alaxira mbugal gu dul jeex ci safara su dul fay mukk di leen fa xaar su fekkoon ne mbind mu sell mi fii la jeexe tëj téere bi rekk lañuy def te jooy xàcc mel ne ku sànku ci biir géej gi te amul jenn yaakaaru mucc su yàlla ubbiwul woon buntu mucc ngir musal doomi aadama yi kon dañuy torox abadan wante cant ñeel na aji sax ji sunu yàlla ndaxte mbindi yonent yi jeexewul ci nettalib bàkkaaru aadama yàlla mi bare yërmande ubbil na doomi aadama buntu mucc naka noonu kàddug yàlla nee na bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xibaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp fa bàkkaar bare yiwu yàlla gën faa bare ndaxte yiwu yàlla feeñ na te ubbil na ñépp buntu mucc amin ci dëgg-dëgg yàlla ku sell la te faaw mu àtte bàkkaarkat yi yàlla ku jub la kon mënula fàtte noonu bàkkaar faaw mu àtte bépp bàkkaar peyug bàkkaar mooy dee tàggalikook yàlla ba faaw yàlla du soppiku mukk te it peyug bàkkaar du soppeeku mukk wante tey ji dinanu tàmbali jàng ci mbind mi ni yàlla aji sell ji rabate pexe ngir musal bàkkaarkat yi ci peyug bàkkaar kon dinanu gis ne yàlla du aji sell kese la wante aji yërmande la itam yàlla sunu atekat dafa bëgg nekk sunu musalkat tey nag dinanu gis ca bés ba aadama ak awa defee bàkkaar ni yàlla tàmbalee xamle yéeneem ju rafet ngir musal bàkkaarkat yi nanu wey léegi ci tawret ci téereb njalbeen ga ba jàng ci mbirum xebaar bu baax boobu nu ngi jàng ci saar ñett aaya fukk ak juróom yàlla dafa wax seytaane mi nekkoon ca jan ja dinaa def mbañeel ci sa diggante ak jigéen ji ci sa diggante xeet ak xeetam dina toj sa bopp te dinga ko màtt ci tëstam nanu taxaw fii tuuti ndaxte aaye bi dafa ëmb dëgg yu bare te xóot te am maanaa lool li nekk ci aaye bi mënees na ko tënke nii yàlla dafa tàmbale xamle ni mu naroon a indee ci àddina ab musalkat buy jot doomi aadama ci nootaangeek seytaane boobu mooy aaya bu jëkk ci mbind mi te di yëgle ñëwuk ramukat bu sell bi ci aaya bi am na ñeent dëgg yu nu mbëgg faram fànce ci lu jëm ci musalkat boobu yàlla dige woon dëgg gu jëkk gi mooy yàlla dafa ci yëgle ni ramukat boobu naroon a juddoo ci jigéen rekk maanaam ci janq bu mësula sëy nun ñépp am nanu waajur wu góor ak wu jigéen wante musalkat bi naroon a ñëw mu ngi waroon a juddoo ci jigéen kese ci kàttanug yàlla du am baay ci suuf musalkatu àddina si mënula soqikoo ci askanu aadama ndaxte képp ku jóge ci aadama takk na bàkkaar musalkatu bàkkaarkat yi moom faaw mu bawoo ci yàlla ci asamaan kon nag li nu mën a jëkk xam jaare ko ci aaya bi mooy lii yàlla dige woon na ab ramukat bu waroon a juddoo cib janq ñaareel bi amoon na leneen lu yàlla yëgle ci bés bi aadama ak awa defee bàkkaar ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw yàlla dafa ne seytaane dinga ko màtt ci tëstën noonu yàlla doon na yëgle ni seytaane ak ñi ànd ak moom naroon a fitnaale musalkat bi yàlla yónni te gaañ ko ci njàng yi di ñëw dinanu gis ni yonent yàlla yépp yëgle woon ne faaw musalkatu àddina si dékku ay coono yu jóge ci seytaane te faaw mu dee ni sarax suy dindi bàkkaar moom mi jub ngir nun ñi jubadi ñetteel bi amoon na leneen lu yàlla wax seytaane ci lu jëm ci ramukat bi naroon a ñëw ci àddina yàlla ne seytaane mi nekkoon ca jaanja moom dina toj sa bopp xibaar bu bon la woon ci seytaane di xibaar bu baax ci képp ku bëgg rëcc ci dooley seytaane noonu yàlla ngi doon yëgle ne musalkat bi dina nasaxal jëfi iblis yewwi doomi aadama ñi nekkoon jaami bàkkaar ci mujjantel gi nag aaye bii yàlla doon na ci yëgle ni mu naroon a amee ñaari xeet ci àddina si maanaam xeetu seytaane ak xeetu yàlla xeetu seytaane mooy ñi bañ a gëm kàddug yàlla xeetu yàlla mooy ñi gëm kàddug dëgg gi te di ko jëfe yàlla newoon na itam xeetu seytaane dina xeex ak xeetu yàlla wante ca mujj ga gaayi yàlla yi dinañu jël ndam li ndax seen musalkat bu am doole bi naroon a toj boppu seytaane kon ci bés bi aadama ak awa bàkkaare gis nanu ni yàlla tàmbalee yëgle yéene ju rafet ji mu amoon ngir jot bàkkaarkat yi ci émission yi di ñëw dinanu gis ndànk-ndànk ni yonent yàlla yépp yëgle woon ñëwuk musalkat bu sell bi waroon a goreel bàkkaarkat yi ci loxoy iblis su fekkee ne li nu jàng léegi leeragul ci sa xel bul jaaxle ndaxte sunuy jëm kanam lépp dina leer nàññ nanu fàttaliku li wolof njaay ne ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay te ku yàgg ci teen baag fekk la fa ndax dinga yàgg ci teenu kàddug yàlla baax na yàlla nee na sooy wut dëgg gi ni ñuy wute xaalis soo koy wut ni ngay wute alal kon dinga am xam-xam bu bawoo ci yàlla léegi nag danu bëgg a àggale aaya yi des ci ñetteelu saaru tawreet mbind mi nee na te yàlla aji sax ji defaral aadama ak jabaram ay yërey der solal leen ko yàlla aji sax ji ne léegi nit mel na ni nun xam lu baax ak lu bon kon bu mu tàllal loxoom witt ci garabu dund gi lekk bay dund faaw noonu yàlla aji sax ji génne ko ci toolu àjjana muy bay suuf si ñu ko jële bi mu ko dàqee mu teg ci penkub toolu àjjana ba ay malaaka yu ràññeeku yi ñuy wax seru benn teg ca it jaasi juy melax tey wumb ngir wottu yoonu garabu dund ga nii la ñetteelu saar wi jeexe am na fii nag lu mata leeral bala nuy àggale tey ci bu jëkk mbind mi nee na yàlla aji sax ji defaral aadama ak jabaram ay yërey dar solal leen ko ndax fàttaliku ngeen lu aadama ak awa defoon gannaaw ba ñu lekkee ci garabu xam lu baax ak lu bon dañu ràbban xobi garabu figg laxas ko ci seen ndigg ngir fexe muur seen gàcce fa kanam yàlla ndax yàlla nangu woon na yëre yi ñu defaral seen bopp maanaam yëre yi ñu defare xob déedéet lu tax nag yàlla nanguwul yëre yi ñu defaraloon seen bopp ndaxte yàlla dafa bëggoon a jàngal aadama ak awa ne ku mat la te mënula nangu jëfi nit yu matadi ci loolu mbind mi nee na ni ko am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yu jub yépp dañoo xasaw ni sagar yu tilim wante am na lu yàlla defaloon aadama ak awa ngir muur seen gàcce te won leen bëggeelam yàlla reyoon na ay mala daldi leen fees defaral ci aadama ak awa ay yërey der solal leen ko jaare ko ci saraxi mala yi yàlla dafa bëggoon a jàngal nit ñi ne peyug bàkkaar mooy dee te bu deret tuuruwul mbaarug bàkkaar du mën a am mënunu ko faramfànce tey waaye moom la yoonu yàlla wu sell wi tëraloon bu deret tuuruwul mbaalu bàkkaar du am looloo tax ñu daan tuur deretu mala yi amul genn tooñ ci pexe moomu rekk la yàlla mënoon a baale nit ñi seeni bàkkaar te ba tey dëkk ci njubteem faaw ñi tooñul dee ci palaasu ñi tooñ noonu gis nanu ni yàlla tuure deretu mala ngir muur gàccey aadama ak awa ganaaw loolu yàlla dàq na aadama ak awa ci toolu ajana teg fa ay malaaka yu yor jaasi yuy melax ngir wattu yoonu garabu dund ga aadama ak awa tànnoon nañu yoonu dee kon mënatuñu woon dëkk ci naataangeeg toolu ajana gisoon nanu ba noppi ni yàlla dàqe lucifer maanaam seytaane ci jataayam ndax bàkkaaram te léegi gis nanu ni yàlla dàqe aadama ak awa ndax seen bàkkaar yàlla aji sell la te faw mu dàq lépp lu sellul kon mbokk yi nañu denc ci suñu xel ñaari xalaat yi xalaat bu jëkk bi mooy yàlla aji jub la yàlla mënula dékku bàkkaar moo tax mu àtte aadama ak awa te dàq leen toolu ajana ñaareelu xalaat bi mooy yàlla aji yërmande la aadama ak awa yelloowuñu woon yërmande yàlla àtteb yàlla rekk lañu yeyoo wante yàlla bëggul woon nit ñi sànku ba faaw loolu moo taxoon mu dige ab musalkat bu mën a jële bàkkaarkat yi ci lëndëmu nguuruk seytaane tàbbal leen ci leeru nguuruk yàlla mbokk yi bu leen juum ci lii yërmande yàlla mënula safaanoo ak njubte mukk faaw ñu ànd ci yeneen njàng yi di ñëw nag dinanu gis ni yàlla jëfe ba yërëm bàkkaarkat yi te ba tey dëkk ci njubteem kon nag mbokki déglukat yi loolu moo doon seen émission yoonu njub nu doon waxtaan ak yéen tey ci dig gu neex gi yàlla dige woon bés ba aadama ak awa jàddee yoonam nu ngi leen di jox dox daje ndegam neex na yàlla émission bi di ñëw ngir gëstondoog yéen ci lu jëm ci ñaari doomu aadama yu jëkk ya di kayin ak abel jërëjëf ci déglu bi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey wala leneen wala su fekkee ne ay téere ci mbind mi mu sell mi moo leen soxal bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci mbind mi naan fa bàkkaar bare yiwu yàlla gën faa bare